dekk bi amal na la cant ngeureum ndax nit lu mënalul bofam nit ñew diko ko defal warna ko sante warna ko geureum warna ko ñaanal te li malay wax ni sama kaddu la ak kaddu wa dekk bi yeb papa dogguma la sax mais sama liggéey rek lay def dëgg boo fàttalikoo mhm. bi may ñew sa biir kër gi neewon na la li ma moy sensibiliser wa dekk bi mhm. ngir mu ñu mëna xéx paludisme gis nga sa doom ji ma mag bi mhm. ma ko téye samay lox tax may rappelé lu bari ni mel ni doom bi nga xam mako maa mhm. Waron ka am sama jabar te aw loolu moo tax ma ni damay xar sama tu tubay jàppale ko ba mu wér ci jàmm ak salaam sama devoir rek laa def jarul woon sax nga may gërëm wala nga may remercier li war rek laa def xam nga nit xam na la ko war te defu ko te ñun bi fayul deureumu kenn demul ci yow ya may deg eh Mamadou Mamadou kay kay kay sa wajang ni <laughs> sa waj ah nag ma noon romb ni te doomu nuyu <laughs> mais léegi tane nga xanaa xanaa nag léegi wér nga wér na yaa ngi fubali ah, est-ce que dugal nga bi man ah ah mais xanaa léegi nag di nga dougal ay ñaari bi ñetti bi sax Mamadou ah mais contane na trop ah da mm. nga téye sa bop bu baax a baax a baax baax nga góorgóorlu moytu salte yi tamit mm. wa ay ci dawal fooy <laughs> wa papa waaw euh, man de may bëgg yak waxtaan dama nekk ci yoon nii war a di delluwaat ci biir liggéey te aw ma toogaay. déedéet doo demee noonu xaar ma yow am na lu ma war a def ak yow. Ah, ah déedéet xaar ma xaar ma maa ngi ñëw. ah papa jaru ko xaar ma ma <laughs> ah ñëwal. sax papa ji daal <laughs> beneen affaire la quoi. <laughs> yow booy bare bi guerrier nga guerrier dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yow ah booy yow li ma la yàq ci réew mi yëpp lii ma la gisee xam naa ni jàmbaar nga jàmbaar rek mën a dékku li fi dékku yëpp toog fi ba heure bii waaye man xaw ma ne woon ndekete médecine traditionnelle mën naa ànd ak seen yëf yi loolu lu ma ëmpale woon la loolu rek a taxoon mbir mi demee noonu waaye yow jàmbaar dëgg dëgg dëgg mooy yow ci wax jooju noonu nag mhm. ci laay ñëw mhm. parce que waa district sanitaire waaw ak PNLP waaw dañ ma chargé woon pour ma recruter ay champion communautaire aha te su ma sañoon nag bëgg naa nga ànd ak yow comme ça ñu defandoo loolu ah xanaa loolu mën ma caa bokk ah <laughs> waaye booy na des papa ji ah daaw na nag loolu moom mën naa caa bokk nag rek la des loolu maa ngi ca biir <laughs> loolu daal moom gis nga jàmbaar waaw boo ko doonee loo bëgg da nga koy am te nii ñu la gisee ci village bi nii rek la nit ñi war a liggéey nit buñ la joxee liggéey da nga cay xar sa tànk tubay liggéey li nga war a liggéey ndax nga am ca ndam kontaan nañ ci yow dëgg dëgg kontaan nañ ci yow torop li ma war rek laay dëgg la noonu la jërëjëf Sénégal looloo koy doxal ah, waaw wasaayu waaw nekk waa bënn ba waaw waa bënn ba ñoo ngi fa ñoo ngi ci xeex bi rek di góorgóorlu waaw noonu la waaw di jóg ak daanu noonu la noonu la alhamdulilah daal ñun moom dañ lay gërëm ah. parce que vraiment après formation bi. Mm. Eh, gin gisoon nañ ñi bënnoo ba si buru bi sonaloon na leen torop amoon na fa ñu bëri ñàkk nañ seen bakkan mm. donc mais ñun également ñu gis sa engagement mm. gis eh, eh, ni yow mii daal di nga mën a def liggéey bu am solo foofu ci bënnoo ba moo taxoon ñu affecté la fa mm-hmm. rëcc wuñ ko mm-hmm. parce que jokkoo naa ak Fama Euh, jox na ma seen dernier résultat yi. Mm-hmm. gis nañ ni mortalité bi. morbidité bi wàññeeku na fa bu baax a baax a baax. Mm-hmm. mu nekk nii daal vraiment sant yàlla daal. waaw dëgg la comme ni nga ko waxee rek. Mm-hmm. boo ci xoolee sax chef de village bi. au début peut-être amoon na ci ay njàqare ak ay doute. mais léegi dafa bokk ci xeex bi. ànd ak man di xeexante ba ci biir pali bi. ba pare aussi tamit mi ngi regretté bu baax. parce que nee na bu sañoon. dana ci teel a dugal loxoom. parce que boo xoolee doomam bi ak kaawam bu critique boobu noonu ba ñu yóbbu ko ci euh, ci poste de santé bi ci faaru fële ne mm-hmm. nee na moom bu sañoon mm-hmm. xale bi dana ko teel a jël mm-hmm. yóbbu ko wala bu xamoon ni nii lay mel dana teel a dugg ci xeex bi xam naa après daañu daje ci festivité yi pour recrutement champion incha allah incha allah waaye incha allah fa daje bu baax xam naa dama lay bàyyi ko sa après ñu mën daje foofu jërëjëf waaye incha allah xam naa ci kanam jërëjëf waaw <laughs> incha allah waa asalaamaaleykum waa banoo maaleykum salaam ñu ngi leen di gërëm ci teewaay bi di leen sant. rafet na te loolu wax bis bii bisu màgg la am déet. dëgg la ndax xam ngeen ni paludisme di si biiru sonaloon na waa dëkk bi. lool daaw demee bi fi dikkee lu na def naa ko. wallaahi jiñ naa ko fi am ndoxaan. jiñ mm-hmm. naa ko fi ab sàcc. jiñ mm-hmm. naa ko fi dégg nga ma makaro. Mm-hmm. lu ne jiñ naa ko fi. ñàkk xam waaye tey. bi nga xamante ni yàlla def na ma xam. xam naa li njëriñu daawdu kon daawdu ñu ngi lay gërëm di la sant. di gërëm sama mag ji di chef de village moom it xaw naa ko fee ñam-ñam yu foor <laughs> moom it maa ngi koy gërëm di gërëm sunu docteur bi saaliw nga xam ne ku feebar ci dëkk bi dégg nga maam moo lay taxaw kon defe naa li ñu doon ñaan yàlla lépp am na muy sibiru ñu mën a xeex ak moom mm-hmm. ba jëflante ak moom ba mu sorenu mm-hmm. te loolu gis na ni alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mi ngi ci dimbali kon daal ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di wax ni daal daal kontaan nañu daal kontaan nañu kontaan nañu jërëjëf ngeen tàcc loolu rafet na jërëjëf waaw ma yokk ci kàddu rek di leen wax ne aussi tamit euh, xeex bi yamul fii kase daañu duggaat yeneen gox ak goxaat jéem a xeex paludisme waaye tamit suñu sañoon dañuy soxla ñi nga xam ni ñooy champion communautaire pour ñu mën a continuer xeex bi na ñun ani kandidaa yi nga xam ni ñoo bëgg doon champion communautaire ñu taxaw fii nii léegi ñu commencé suñu xeex fii waaw Eh, eh, ay jàmbaar lañ ah, voilà eh, oxy sax ci biir leen liggéey dafa mel ni ma yokkaat ci tuuti rek mm-hmm. dafa mel ni suñu xeex tamit mm-hmm. résultat bi lañ doon xaar ndax nga woote rek ñu ñëw wuy si mm-hmm. lu jara sant la yaakaar naa ni ñii Mhm. ñooy acteur u demain ñii ñooy dugg ci gox yi mhm. ñii ñooy waxanteek waa gox gi ñii ñooy waxanteek ñi nga xam ne ñoo dëkk ci biir di lay xamal nan la ñuy mën a seen bopp ci sibiru bi ñuy wax paludisme mhm. man daal defuma lu dul kontaan monsieur monsieur Saliou a ngi nii je pense que ñii daan leen former xamal leen exactement wàllu sibiru bi ñu daal di mën di dugg ci biir dëkk bi ngir waxtaan ak borom dëkk yi et aar aussi tamit ñëpp ñi nga xam ne ñooy dund foofu noonu pour que sa sibiru mën a jeex tàkk-tàkk bi gërëm nañ sant nañ leen. jërëjëf nag waaju baax. ana fen femel moo nu sonal. mën a jàppal mu jëm ca biti. waaw femel moo nu sonal. mën a jàppal mu jëm ca biti. waaw ana femel moo nu sonal. palu. Zéro palu. Zéro palu.